ndax àddina moom. non yàlla moom day tëj waxtaan yàlla day tëj waxtaan. yàlla yàlla soo indee yàlla teg day tëj waxtaan dama ne. lan moo tax jigéen dégg alxeeri ab diir bu gàtt mu génn ca taxaw di ko bàkkoo. waaw ndax xëy na moo looloo ko neex. ah neex waaw. ok ndax ku nekk ak li sa <laughs> yaa ngi soog a ñëw waaw neex nit ki ak li ko neex. ak li ko neex ak li ko arrangé yaa a ñëw déet arrangé. man maa ko njëkk a def. loolu de ah, ma ko de yéen seen kanam. mu taxaw ne moom laay ma ko de. waaw su ma waxee dara nag ma digaale ko ak moom. mami loo def. bàyyi jàmm. man maa njëkk sas. waaw bàkkoo lu tax ma bàkkoo ko. fam hmm. fu ma ko teg. ndax jigéen laa xam naa fi ma jugee. xam naa tamit fa ma jëm. Hmm. ku sañoon boo amee jëkkër toog ca sëy. <laughs> ndax ku romb góor yëpp ne ki may takk laay sëyal ku ne di la bëgg nga sëyee kooku nga dugg la ca ñaanoon yàlla xëy na ak la ca séntu woon yàlla defu ko ca nga génn ca wax ji bari lool nga génn man génn naa def ko yor sama téléphone sama xarit di kaf ak man man ko un mois vingt jours ndax man kenn du ma stressé loo ma war a wax ma wax ko sama bopp. loo ma war a xasee ma xasee ko sama bopp ndax lu waaye di xool ci boppam rek gis ko muy ci man muy ci keneen waaye kenn ñaanul yàlla sëy di tas ndax ñun suñu yaay bañ sëyee ba tey ñu ngi toog macha allah tout à fait mhm. kon ba nga génnee sa sëy ba neexula woon neexuma woon kuy say di tas ma lay damay laaj rek damay laaj ah ma woon moom wax dëgg yàlla ndax amoon naa ci yaakaar amoon nga ca yaakaar yaakaaroon nag naa ci jur ay façon naaru góor ak ay fatante mhm. waaye yàllaay dogal yàllaay weddi te yàllaay takk mooy dindi waaye muñ am na bi muñ naa ba sonn nag sa sa tax ma daw. Ah, ah, ñett ñaata la nga ci <laughs> ba sëy bi amee takkusaan ma laa tàmbalee. ba dama ne Kobana kii ba Kobana. dama lay laaj <laughs> yow léegi. na muñ na ba sonn. waaw nee na nee na un mois vingt jours la muñ. waaye ma nag ak moom yéen tamit. ah nekk un mois vingt jours nee na mu. di nga man sama xol nekk ak li nga mën a muñ rek ak li la li la. weer ak ñaar fukki fan mën na def ca sëy ba muñ fa muñ ba àdduna di ko coow. mu génn ci. muñ fa lu jigéen muñul. déglu leen de waaw nee na muñ fa lu jigéen. muñul 15 ans de mariage. loolu nag de kon. nee na lu jigéen mun fukki at ak juróom loo xam ne dina ah. la may dund man la concerné. dëgg ba ma koy dund fekkew ko. Ah, waaye dóorunu la. man kenn du ma dóor. saaga wun la. ankay. waa papa doo génn ci vie privée jàmbur bi ngay xuus. xiif nga fa. mar naa fa. mar nga fa. rafle naa nga fa. ak leneen lu ma la dul nettali benn saa leneen loo xam ne doo ko nettali. du ma la ko nettali yow Père bu ma kenn may bu ma ko kenn may. Sophie ñu bàyyi la nga mu ne. te ñu Mohamed dimbali ñu ngir yàlla ngir yonent bi dimbali ñu ngir yàlla ngir yàlla tey dañoo dañoo naajo. mu ne. soo soo ñëw jàmm si yàlla. soo ñëwal parce que ñi dañuy ruube. <laughs> oustaz day ruube Yaasira day ruube ñëw. mami am nga fi day faal. waaye moom laa doon wax tout à l'heure uh-huh. chaque jour bu ñuy def thème damay wax ne on vit en société. Uh-huh. tout nekk expérience am. Uh, parfois moom lay waxee. Uh-huh. sànq dafa wax wax diir per tëb ni ko wante muñ dafa bokk ci sëy mais papa war nga war a mën a xam ne it. ku ci nekk ci ñun bi ñu yàlla di bind daf ñu bind ak ay degré muñukaay yu différent waaw waaw non dama ne encore une fois encore une fois amul kii amul kii ku nekk ni la yàlla bindee ku nekk ni la yàlla bindee ku nekk ak ni la yàlla dëgg dëgg muñ te loolu dafa bari dëgg muñ parce que tey tey damay joxe benn exemple yaa sayda gis ngeen expérience de vie expérience de vie na gaaw na tàng dama sama yaram dafa tàng ni ah, mu dem soo soo soo soo soo bàyyi jëli gànnaaw bi yow tamit nag sotee ñu dem demal demal man laa wax man dama koy moytu. kii mhm. laay gën a moytu si plateau bi képp kii laa gën a. dëgg li nga waxee doon dëgg rek moytu barke borom. soo demal fi nga nekk dafa baax. xam nga xam nga problème bi mooy boo yàggee ci àdduna yàlla dox. waaw boole xam àdduna. dëgg la soo doxee doxandoo. nga xam ne ñi ko doon doon seen i la ko tëdd. ñi ko doon doon seen i la ko tëdd. war nga xam àdduna. kii mu ne dox kii koy doxal. ndox kay ak xabaar faal banque bi amul ay yanaar amul góomi daara lakkut ci daara. yow taali jàng reyu ko mu ne daawul xam nga ni. soo yëgalee yëgalee waaw demal temps bi muy dem bul topp kii. ah vas-y. yow tamit bëggoo jàng de man man bu ñu sëyee ci kër dina métti de. su kan sëyee. ministre yi doxul de. ah non. tey lan moo leen dal lan moo leen dal ñëw leen ci thème bi on avance s'il ci thème la ñu nekk. s'il vous plaît. il faut aussi mu mu mu père. il faut nga nangu dégg nit yi. fi ñuy waxtaanee même bu fekkee ne yow. du ah, doon sa gis-gis ab dof la yéen yéen a ngi. non non non ah, même bu fekkee du sa gis-gis parce que tey on peut pas parler. nee na mujj na de sujet bu complexe nii bu délicat waaw ñu ñu koy ñu koy ñu ko soxal na fa mar na fa. daj na fa lu nekk ci diggante weer ak ñaar fukki fan. waaw nee na mun na fa loo xam ne ab sëy nit mënu ko ca fukki at ak juróom. te mu laaj ko ndax da ngaa xiif. ndax da ngaa rafle. ndax da ngaa mer. ndax doon laa dóor. Mm. ndax lan la wala da ngaa tàmm ab dox. ñu koy tëj. ah loolu mën naa ah, wax dëgg yàlla kenn tëjuñu sax kenn tëju la non fu la neex dem wax dëgg yàlla ndax ñun liggéey la dama ne ba nga nekkee ci ñun dem xamuñu woon xamuñu woon fu ñu neex dem ndax dañoo fekk ci kër damay laaj fekk ci liggéey li ngay wax man dama ne soo duggoon sama kër dootoo génn di ma bàyyi ma liggéey ndax ki ma fekk waa expérience yi bokkul kamatakoon ak yow bokkul da nga ne yow kooku bokkul moos na bokkoo leen te yàlla boo leen bokk am na loxo yoo xam <laughs> soo ca duggee di nga xam ne am kan la la ca duggal xob génnee ko ca. ndeysaan. Hmm. mami xam nga xam nga ko damay noonu. mami dama lay nit koo tee rek nopp ko. exactement. ah c'est vrai c'est vrai. li nga wax ni yaa am na ñoo xam ne dañ doon taxañuloo ay nit di leen fotloo di leen def affaire yu mais bañ jëlee ka ñu bëgg. ki nga xam ne moom bañ jëlee ka ñu bëgg. ba boo ma tey woon rek moom doon na boppam ba pare. ki nga xam ne moom princesse princesse de Corée. c'est-à-dire moo tax ma ne nit ku nekk. la ngay dund c'est en hmm. fonction de sa expérience de vie. man naa ne ci plateau bi am na ku fi toogoon di wax ni jigéen di seeyee. di wax nitu daara yi boo seen soxna yi def leen nii. di ko yàlla dénkee soxna bu ndaw da koo aj di ko toppatoo comme ni ñuy toppatoowee soxna. dëgg la donc c'est l'expérience qui fait la différence. man nag tudd ma tudd. Mhm. Euh, pour revenir ci sujet bi dama doon dama doon wax ni. te wax naa ko ne ko gis naa ay sëriñ daara jàngalekat yi alxuraan ne nga Tuubaa kaay ma may la ci. ba ma ko dalal ak léegi yàgg na. waaye sa yàllaa ko. déedéet déedéet non non bu ko wax loolu. moom kañ amul problème moom sëy la nu bëggul. dafay nekk bëggul woon sëy. waaw dafa ma tax bëgg noonu sëy ndax daal jigéen sëy la. ñoom ñëpp koo ci xool seen loxo lakku. ah. ah man sama loxo yëpp la. parce que borom Touba du ñu togg. xam nga moom maa te kenn seetu ci. te kaay moom ndax li tax eh, mooy seeni we danoo poosé seeni we ba mu kii ma loolu soo demee tey ginnaaw kër ñooy raxasoo mooy rafet ni dama ne wax ngeen ko. eh wuyu leen ma. loolu nan la ko nit yi. poosé ay la yu toll nii dem ginnaaw kër ba nga raxas suba set. waaye yow soo wokk soo mënoo caa nag. man moom heureusement. ah. ñaata heureusement. ah da ngeen di wax wax ji. da ngeen di wax lii ma leen di wax. topp leen ko ba mu sori lool. ngeen xool li ma leen wax ndax mën naa nekk wala mënta nekk. soo bëggee waaw daal di poosé ay weer weer wu nekk tollu nii. waaw nga bëgg a dem ginnaaw kër ba nga raxas suba set. ak jigéen ni mu bëree ruq. dëgg la dëgg la soo soo àggaleel. yow yaa dina xam li ma yow oustaz bi te nangu woo ko da nga ànd ak ñoom. parce que borom tubaab nga ànd ak ñoom. oustaz di nga wax di nga wax bu ko toog. mais yow dégg mais père mais père. Eh, ki dégg na waa père waa waa waa xam nga yaa Seyda. dëgg ngeen bëgg. waa mais bëggatoo ko wax dëgg. waaw ok mais dama bëgg ngeen may ma ma yeggale suuf yi après ma ñëwaat ci yow Fall. Ah, nga organiser ko tuuti daal. Mm-hmm. jàppale ma si. dina jeex dina parce que yaa ngi yow yaa ngi perturbé di ruube. ma perturbé ah balaa may balaa may mer fi <laughs> mm. dama ne ku nekk ak expérience bi nga am <laughs> mm-hmm. atte néegu sëy moo gën a metti ci atte yi maa ngi wax ci kanamu ay boromi xam-xam ñaari waay dencante mm-hmm. ay ñaari waay dencante yu am problème bu nit ki di yow boo nekkee nitu yàlla boo nekkee nitu yàlla dafa am nooy doxee ak nu maanaam sa ragal yàlla mhm. bu la ñaari waay dencante yi tiimee mhm. day tax ne da ngay xam ne situation délicate mhm. que ñaari nit la yoo xam ne dañ leen fas ci farataak sunna ñu sëy ñu am problème ak ci yow mi nga xam ne ginnaaw yàlla yow la ñu yaakaar soit pour nga defar wala ñu ne carrément lii nii mënatul dem divorce bi yàlla di bind sëy da ko bindaal cest diir xamoon na ne ñaari waay dencante dinañ toll foo xamante ni à la place de rayante ñu tàggoo moo gën xam na ne ñaari nit dinañ sëy su fi def oustaz Mouhamed mbay loo xamante ni moom bu ko ci toppee mu wàcc ko mu dem kër waajuram moo gën wala sofi bu toogee ci néegu sëy boobu di fa sëy du fa jur lu baax ndax amatu fa yéenewu sëy parce que yéene dafa baax ci lépp nit nekk na ci euh, néegu sëy oustaz Mouhamed mbay ay ati at mais amatu fa yéene nekkatu fa mooy na société bi moo ko fa teg yàlla tegatu fa y société et ñi fii taxaw ñëpp naan nit yi tey non di stigmatiser la femme divorcée wala di wax waxu tas wala lépp teguñu ko ci yàlla seen bakken lañ ko teg waajur bu la ne bul tas sax au mu xool sa fin problème waxtaan ak ñaari waaye dencante sama noon yi lu ñuy wax la ciy teg mu mel ni li yàlla wax ëppul importance que li nit ñi di xalaat parce que nag dañuy wax àdduna ku ci ne da nga yor sa góom rek ku ci nekk ak pansement bi nga ciy def waxuñu ne ay divorce ak man maa ko wax encore une fois nee naa ni nekk jigéen divorcé def ko ndam mami dafa ne tolluwaayam la man nangul ko ko on vit en société mais ma ne man de Sophie Gueye bu doon man du ma ko def du ma divorcé di ko bàkkoo moom mami la moo xam expérience de vie wam dañu ko koy nangul et on avance su ma taxawaatee si si si si divorce dama ni bi ko yàlla di di daganalee rek la ko nit mënul jël di ko stigmatiser mbaa nga koy ñaawal te kenn tegu ko fenn encore sudul le regard de la société ni la yàlla di xoolee moo gën ni la nit yi di xoolee bu la leeree ne sëyalatoo oustaz Mouhamed Mbaye te yàlla rek a tax yaa ngi koy sëyal te nit yi tax mais demal mais demal léegi ñaata nit ñooy sëy te nit yi tax ak ñaata nit ñooy sëy te yàlla rek a tax muy point d'interrogation oustaz Mouhamed Mbaye sunna dafa am importance